aosbilahi mina seytaan rajim yi bisimilahi rahman rahim sant yàlla julli ci sangu sang yi Seydina Mohamed sant su ñaara waaji sant su wasila Cheikhul Khadim di leen baax di leen ziare ñi nga xam ne saa su ne yéenay jàkkaarloog Waarwi TV nekk alu Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul Waarwi TV nag ci émission bi am solo yi muy def macha allah jógaat am benn émission boo xam ne bu bees tàq la muy bay sa waar di fa seejee ànd ak liggéeykat yi nga xam ne ñu ngi dëkk bu sell bi di Touba képp koo xam ne yaa ngi ci département bi foo nekk di fa liggéey rek am nga place ci bay sawaar ci ci liggéey bu Waarwi bi ak li nga xam ne saa su ne mooy neex askan wi nga xam ne ñoo nekk ci département bi li leen di li bëgg saa suñu xëyee di ca dox ngir seen i bëgg-bëgg ak seen pas-pas ci liggéey seen pas-pas ci am jom seen pas-pas ci ci lépp ndax fii ci boo fi duggee da fi gis ay jàmbaar yoo xam ne macha allah ku ne yaa ngi bay sawaar ca na ko war a def te di ko sellal moo waral nag ñu ñëw seet si suñu mag waaw ah, suñu càmmi suñu lépp ñu ñëw sees ko fii ci atelier bi mu nekk muy suñu première émission nag ñu ci xaar bépp liggéeykat boo mën di nekk xam naa numéro téléphone bi ngay jaar ba bokk ci émission bi dana jaar ci suuf bépp liggéeykat bu nekk fii ci dëkk bi sell bi di Touba rek xamal ne émission bi pare na pour ànd ak yow bay waar kon nag ñu nuyu suñu jëwriñ ziare ko bismillahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim barke borom Touba barke borom Touba waaw ñoo ngi kontaan ci émission bi ndax euh, lii lu ñuy rafetlu lay doon ndax euh, lu fi manqué la lu manqué la parce que euh, ñun dañu nekk ci liggéey te booy xool pratiquement kenn duñu dégg daanaka dafa mel ni dañoo nekkul citoyen wala dañoo tekkiwul dara ci réew mi daal parce que dooy dégg sax ba réew mi ñuy wax dara ba cité ci technicien téléviseurs yi te dañ fee nekk ñu am solo ndax boo mënee reer ba suur toog ci sa salle di seetaan série wala ngay seetaan yaa xam loo munti di seetaan c'est grâce à techniciens yi ndax euh, ñun dañuy participer ci développement bi te gars yi du ñu sóoraale ci dara mën naa ne du ñu sóor ci dara ndax euh, lu ne day xew ci réew mi lu ne lu ne da nga dégg ñu wax ku ne tudd ouvrier bi tudd bee tudd bee informel lépp ñu tudd ko mais ñun daal boole wuñu ci te fi mu ne nii temps lépp luñ mën a gis ci réew mi ba man ci ba man ci débat wala ci man def dara ñun dañ cee bokk parce que boo yoree télé télévision fi mu ne nii toll na foo xam ne ci jamono ji ci àddina bi kenn mënatu ko ñàkk ñëpp ñoo ko yor di ko utiliser nekk na outil boo xam ne daal dafa bokk ci luy développer addina kon ñun ñi féete ci loolu nga xam ne ku ci am problème ñun ñoo la ciy génne dañoo bokk ci développement bi gars yi war ñuy sóor bu baax a baax te duñ ko def lu loolu nag lu ñu naqari la ñun techniciens yi ndax parfois dinañ dégg gars yi ay ndimbal yuy am ñu naan dimbale nañ ñii dimbale nañ mais doo ci dégg mën naa ne secteur kii daal ouvrage daal moom doo leen ci dégg ba tax na émission yu mel nii suñ koy am dinañu dimbale dinañ ci mën a wax liñ ciy bëgg a wax pour la première fois nag may gis lu mel nii ma di leen ko santé ñoom ñoom waar wi di leen ci gërëm di leen ñaan émission bi dem ca kanam ndax euh, njëriñ la ci réew mi te xam naa ne bu ci yàlla defee liñ bëgg bu soobee yàlla yàlla dina ci mën a jàppale ouvrier yëpp bu soobee yàlla maa leen ci ñaanal ci barke sëñ Touba mu egg foo xam ne dina kawe seen njort. kan mooy Mass. day benn <laughs> waay la rek man nag euh, cosaanoowu ma fii sama baay nag sama waajur moom fii la cosaanoo. mais man juddoowuma fi maa ngi juddoo dëkk bu ñuy wax Ndofane Lagem fala juddoo ak sama rakk bi topp ci man yëpp après nag dañ mujj toxu dakaar ma nekk fa fala doon jàngee après bi ma jàngatul may sama nijaay dugal ma ci métier électronique maa ngi doon liggéey ndeysaan maa ñaanal sama patron bi ma yoroon yàlla yërëm ko xare ko àjjana nekkoon ku ma bëgg lool daan ma fonk lool ndax booba place baa ngi nekkoon di foncé ci guy gi foofu falaa doon jàngi métier dañoo demoon ba daf ma bëgg bëgg bëgg ba nga xam ne grande mosquée lañ daan julli ji jumaa mais dañ daan def suñu daan julli jumaa buñ sëlmalee booba grande mosquée fëgg jaay la ñuy lal ci biir ak ñiy jaay yéreek lépp buñ ma saana sëlmal day téye sama loxo bi dugal ma ci ñiy jaay daf may jëndali yére jëndali yére ba dootuma ko àttan damay dem ba mujj suñ sëlmalee rek damay gaaw daw rek dem place ba ndax bañ mu may kii daanaka maa ngi dëkkoon Colobane temps boobu sama xarit yëpp dama leen daan ravitaay ay yére dama leen daan may tellement que daf ma bëggoon di ma jënal ay yére fu mu toll. mais tamit wax dëgg yàlla liñ naan métier soo koy jàngit dafa am lu la ca war li la ci war mooy du xaalis booy joxe mais jekkoon na sax kuy jàngi métier di fay ndax xam-xam ku la ko ku ko def ci ci yow rek. war nga koo fay ameel nga ko njukkeel lu rëy rëy rëy man wax dëgg yàlla tamit doon na ma maanaam li li soldat yi bënn bënn moom daan na ma ko def parce que boo xoolee diggante Difoncé ak Colobane su ma daan xëy damay dox dem kolobaan ubbi euh, dem Difoncé jógee kolobaan dem ubbi ji place ba Difoncé su midi jotee añ bi ma yenu ji damay dox dellu Colobane booba maa ngi jaar camp Samba kan <laughs> camp gendarme kii boobu ñuy wax nii tey falaa daan jaa ci biir génn dem Colobane xoog yanu booli añ boo xam ne xale boo xalaatoon yéen tey mu ne la attanuma ko du dem ak gone eh, léegi jàngatuñ léegi li xew mooy apprenti sax moo amatul ndax léegi secteur boo munti dugg xale boo yor tey boo yoroon tey xale mu ñëw xëy si tey di wàcc joxoo ko wala téeméer bu ko defee suba bu ginnaaw suba dootu ñëw kon léegi jàngi métier amatul léegi ut xaalis moo xew maara deytaale nag moo tax ñu toll ci jamono foo xam ne daanaka jamono mën nañ ne yàqu na. ma mën toole waaw xanaa lenn xam nga comme rek tamit jamono ni muy doxee parce que lu ñëw ak la muy àndal léegi technologie toll na foo xam ne daanaka presque. soo xasee jàng tuuti lu ci bari da nga koy mën a xamal sa bopp parce que léegi boo duggee ci internet bi parce lu ci bari da nga koy xam. mais mënul bokk mënul bokk parce que soo gisee ñun anciens yi nga xam ne ay doyen lañ te ñu nga tàmbali woon ca ay soixante-dix-huit ay quatre-vingt ci électronique. liñ doon mën a xam ak liñ doon dugal suñu bopp bokkul ak xale yi léegi parce que ñun booba xelaatuñu woon xaalis liñ doon bëgg mooy am xam-xam ñu doon jàngal tamit dina ko yéene man dama daan Dakar li muy jafe-jafe fi mu ne Colobane maa ngi fa am benn repère boo xam ne ci moniment Colobane boobu ba léegi li may nekk nekk mag su ma fa tolloo sama yaram wi day daw ndax booba sama patron dafa yoroon ay xar dama leen daal gubali ak ñax ni muy ñàkkee Dakar diggante pont Colobane beeg monument boobu fu ne laa daan góob am benn bés dama góob saako ñax bi jëllu ko ba pare yéeg barbari pour jàll jagetu jiin bu ma soloon lonk ci weñ way taxaw nii nga xam ne nii laa def sama loxo yi ba sama loxo toqi ma mujj yuuxu ba car rapide bu newoon foofu ñoo mujj wàcc ci car rapide bu ñëw daal di may daal di may dimbale ba ma ba ma kii xam nga léegi nii su ma yoroon benn apprenti tey ne ko kaay gubali ma ñax wala kaay sangal ma sama xar xelaatuma ko sax da ngay gis léegi apprenti boo ko yoree sax boo ko nee kaay ma yónni la fii marché boo xoolee kanam gi rek da ngay da ngay gis am na nag vraiment ay gune yoo xam ne yàlla moo leen defar bokkuñu ci yooyu ba nag ne parce que man yor naa fi apprenti am naa fi ñu ma fi jàngal métier mais xam naa nit ñi ba tey jamono changé na mais am na ñoo xam ne jamono du leen soppi ndax lu yàlla di def ci ñoom la waaw léegi fi ma doon jàng métier man def naa ak moom onze ans fukki at ak benn ba ma fay jóge avant ma fa jóge la ma am formation bu ma doon defal CFPT centre formation Sénégal Japon fekk booba daf ma utal liggéey parce que hollandais ñu ubbi woon benn maison Dakar ñu tuddee koon Sierra bu ngi nekkoon 72 rue Carnot fekk booba ay technicien lañ laajoon ci la ma dugalee ci formation boobu ba ma génn jot sama diplôme dama xëy benn bés rek mu woo ma woo sama nijaay sant ma gërëm ma ne ma léegi dama ko utal liggéey foo keroog laa xam ne liggéey la ma utal après mu ne ma bu man ngaa ñibbi bu lëndee nanga nga teel a ñëw comme ça ñu dem ci lëndi ba ma ñëw ñu ànd mu yóbbu ma foofu ñu embauché ma booba it laa ko gën a jàpp ndax euh, nit day am loo xam ne su la ko defalee tamit jàngale métier mënoo ko fay wax ma mu jàngale métier ba dem ba utal la nga utal la embauchement ngay liggéey maa ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla dolli leer tàbbal ko àjjana léegi nag man ma nekk fii dox bi ma nekkee foofu ñu dem ba mu yàgg xam nga affaire sénégalais moom ñaari liggéey tamit lu ñu bokk rek ñaari day faral di am jafe-jafe maison boobu ñu nekk ca ba directeur bi ko yoroon mujj xam naa daal am na nu mu demee ak hollandais yi maison bi mujj tëj mais bi mu tëjee ma des Dakar nekk fa léegi bi ma fa nekkee tamit li yàlla di dogal tamit nit day am ñu koy boole am hollandais yi koo xam ne dafa jóge Hollande dem Gambie installé fa ba mu fa installé après ñëw Dakar di ma wër ba gis ma yóbbu ma Gambie fi mu ne ma dem fa Gambie muy di ko liggéeyal nekk naa fa ba nekk nañ fa ma nag moom ñaari at léegi nag bi yàlla dogalee élection yi doon ñëw mu ragal dëkk ba ne moom day ñibbi Hollande parce que booba gam bi tàng na tàngoo xam ne doy na waa daal ba muy ñibbi aussi magasin ba bagage yëpp la ma may daal di ñibbi man ma roñaat bagage yëpp ñibbi waa dakaar léegi yàlla dogal ma nekk fa quelque temps di dem Mauritanie ak a ñëw am fa naar bu moo xam léeg-léeg mu jël si ma dakaar ma dem def fa une semaine ñibbi parce que bëgguma woon toog muritani parce que Mauritanie sama yaay ñimewu ko woon su ma fa demee du doon lekk du naan moo tax su demee ay 4 jours 5 laa fa daan def ma mais naar bi bu ma soxlaat day dawal otoom ñëw jël si ma Dakar Touba li ma fi indi mooy affaire bu doy waar laa lay wax nii nag <laughs> li ma indi Touba dama nekk Nouakchott pour la première fois nag sama voyage boobu ma def fa neuf mois li ko waral mooy naar bi bëggoon na ma toog mu Mauritanie tan nanguma foon toog benn bés mu ne ma day dem Maroc ma ne ko baax na mu daal di dem ndekete dem na dakaar jël sama jabar ak sama ñetti doom yi ma am yëpp man dama toog di julli timis rek sama benn doom bi ñëw daw laxu sama tànk yi ma egg suuf toog papa papa ma toog dama tiit dagg julli gi ma ne ko waaw lan la ma geesu naar ndeysaan jijaat lii lan la mu ne ma waaw ñii ñoo tax nangu woo toog Mauritanie indi naa leen bu subaa dinaa la may terrain fii tabaxal la ko nga toog ci Mauritanie xam nga ma ne ko ah mu ne ma ma ne ko tooñ nga ma nag bañ xawoon ci am ay kii sax mais ma mujj baay xam ne mbëggeel la rek mm-hmm. ci laa fa toog neuf mois yooyu tabaski jot ma takk samay bagage ne ko damay tabaski ji Dakar noonu laa jëlee oto wàcc Touba parce que li ñuy wax tamit waxu kilifa daa jara fonk sama papa li ma nekk Dakar yëpp mosu ko neex ndax moom ni wutoon Dakar ba ma fa nekkee nekku fa sama yaay fa ne woon ak samay mag ak samay nijaay daf ma ne woon ñibbil Touba Massamba ñibbil Touba foofu mooy sa dëkk léegi nag bi ma xalaatee loolu ma takk samay bagage fii laa wàcc bi ma ñëwee ut kër luyee fi nekk fi man ak sama aawo di ko ñaanal jàmm tamit njabootam gi barkeel te dimbale ko ñu ne fi di daanoo ko jóg may nekk fii di loué di loué di loué loué naa fi 18 ans di fay location ba yàlla dogal ma xam ne lii sottiwut ma uti sama kër yàlla dimbale ma defar ko dem toxu si fa nekk fa loolu mooy ginnaaw yàlla ak sababu sëñ Touba ku bëgg nga dëkk ak moom da nga fi ñëw ndax li fi ma koy xamee mooy bi ma fi ñëwee yàgg naa fi aw ma fi pàkk te mënoon naa ko fee am ndax bañ ko fii joxe fii Madiana ci mbaari ki ko daan joxe fii la daan gaare sama buntu place ne ma kaañ dem fee ba may la ma ne ko ah damaa jàpp xaar ba beneen ñoon yàlla dogal na maa nga dëkki saam loolu yëpp duma ko sikkee sama bopp wala dara parce que xam naa dëkk bi moo bindoo noonu sëñ Touba ku ne fam lay sedd rek fa ngay am mënoo fexe ba dëkk foo xam ne du sa cër ci dëkk bi léegi métier bi eh, ñu gis mu changé tuuti par rapport ak ñu fekk la nga doon da ngay réparé ah, yooyu. Mm-hmm. Ah, télé yu njëkk yi ak yu mujj yi ñoo gën a neex a defar parce que mën naa ne tamit yu njëkk ya moo ëpp xam-xam parce que booba jamono melul nii nga xam ne télé bi day paan nga jënd carte ñëw changé ko. booba télé su paane da nga koy topp vérifier mesurer pièce par pièce nga xam li yàqu nga rocc pièce boobu def ci beneen loolu nag mooy liggéey léegi nag loolu amatul léegi télé yu bees yi parce que da ngay pan meen comme li ma fekk nii tey may def waaw sax télé bi ci ci nga ma fekk may liggéey léegi meen bi moo yàqu lé mooy carte meen bi mhm. tuuti laa ci vérifier rek su ma ci su ma trouver panne bi ma dépanne ko su naree metti dama koy teg fee dem jëndi benn def ci looloo tax léegi nag booy xool mën naa ni liggéey amatul parce que rarement ngay fekk technicien sax mu toog yore carte di ci mesurer wala nangam moo tax léegi xam-xam amatul xale yi léegi du ñu am xam-xam parce que lii ñu tombe la te léegi mën nga toog am problème jël sa téléphone jël modèle télé bi dugg xam nga YouTube composé nangam nangam marque tel modèle nangam problème nangam nangam nga daal di gis réponse ci sens ci saa si xam nga loolu du ànd ak xam-xam. te bu njëkk la nga naan def ci nga liggéey ñetti télé ba ñeenti waaw léegi mën nga boo yoree bagage yi mën liggéey ñetti télé ñeenti télé ba ci juróomi tele mm-hmm. bu njëkk mën nga xëy ci benn téléviseur bay wàcc teg ko ne xëyaat ñëw soog a eggale léeg nga xëy ci télé ba sonn ci yàlla di la defal nga tëdd ba guddi sax nga gént sa paan soo xëyee da dem directement rek ci loolu dépanner yooyu yëpp daf daan am bu njëkk mais léegi moom mën naa ni métier waaw hmm, jafewoon na trop nag ndax bu mujj bu njëkk moom pour nga amoon ci benn benn pièce problème la woon mais yàlla def na léegi affaire yi mu ngi changé parce que léegi bagages yi tukkikat yaa ngi indi yu toj yi ngay jënd léegi booy xool sax ñu ci bari man sama gars yi ci Dakar ñu ci bari techniciens yi sax que léegi liggéeyatuñu li ñu liggéey mooy wër bagages yi jënd am ñoo xam ne dañ ne Europe di leen yónnee bu ko defee dañuy jël wekki carte yi emballé teg techniciens yu bari daanaka liggéeyatuñ xanaa ñu dem fekk ay conteneur ñu jëndi télé liggéeyal seen bopp teg jaay comme man mi fii sax bi ma koy ubbi loolu laa fi programmé woon xalaatu woon toog fi sax di liggéey parce que dama yoroon magasin ci kër gi ma luye woon léegi fii dama ko ubbi pour def vente rek yàlla dogal ak li ñuy dogal ba ma ko ubbee neuf mois laa fi ne ak booba ni écran place serré ñu dajj sama place yóbbul ma sàcc ma yóbbul ma tele yu bari daanaka moo mën naa ne sax moo ma yóbbu kaawoo waaw noo noonu la dem mais fii moom xalaatu woon sax di fi réparé jaay rek laa fi bëggoon a def. xam nga état bi nii ngi eh, euh, nga xam ne ay mag yéen borom xam-xam fii ci Touba placé leen ko xale yi gën a mën a jàng gëntoon a ci am nit xaalis te amuñu loolu mooy mooy am lekkal xaalis bi rek parce que xaalis nekk na loo xam ne buñ la koy jox na fekk nga am foo koy def pour liggéey pour mu am réuni mais su fekkee da nga toog rek nelaw ba ngoon ñu yee la ne la kaay deux millions ngi nii wala un million nii yow li ngay njëkk a xalaat mooy dem ut ci lu rafet looy def ci sa bopp doo xalaat ne lii xaalis la boo xam ne dama ko war a dem fay te xaalis la boo xam ne daf ma war a jëriñ jëriñ sama beneen moroomu sénégalais parce que suñ la koy jox dañ la koy jox pour nga liggéey ci dem fay ñu jël loolu ngay fay joxaat ko keneen mu dem liggéey bu ko defee affaire bi mën a jàll mais loolu nag problème mu gouvernement la ñu am nit ñi duñ leen former duñ leen jàngal li ñu leen war a jàngal dañuy xëy rek euh, dugal leen ci benn projet wala ñoom ñu lijjanti ba am bralon fexe ba am benn projet ñu financé la moo tax it toujours man affaire financement yi gis naa ci lu ne parce que amoon naa ay sama copains yu nekk dakaar gis naa problème bu ne am nañ ko ci la leen ko dugaloon mooy amuñu woon métier jàngoon nañ seen njàng arrêté liggéeyatuñu dara mais am nañ baralon yoo xam ne dinañ mën a def ay taf lijjanti bañ jox leen financé leen xaalis ñu ci bari mujjug Dakar Dakar dañoo daw gisatuma leen te yu mel noonu moo lii ñuy wax tamit noonu la demee ñun waaw waaw la fii Touba sax malheureusement déggaguma ko fi ñu wax ko fi parce que tamit fii li fi manqué mooy nit ñi dañoo àndul te mbooloo mooy doole fii ouvrier yi suñu àndoon def benn dànk lu ci bari di xàccandoo di dóorandoo lu bari dinañ ko man parce que euh, lu tasaaroo rek. Ah dam association association non ñun de suñ métier bi association moom amu fi dakaar de am na. Euh, maa ngi pour ma passer waale message bi sax maa ngi nuyu sama copain yi techniciens yi Dakar yëpp maa ngi dégg appel bi ñuy lancé pour premier juillet ñu dem l'obélisque manifester parce que aide yi gars yi doon joxe ci Covid 19 bi ñun dañu ci dañ ci diggoon techniciens yi diggoon ci ñëpp te ba nëga ni ay waxi kese rek la moo tax euh, dégg naa suñ président bi Gana Gana mu ngi lancé benn kii démb barki fan yee maa ngi koy dégg ñu ne le premier juillet nañu tasee l'obélisque ñun ñëpp ñu ñu waxtaal ba gars yi dégg ñu parce que ñun ci réew mi la ñu bokk comme ci réew mi lañ bokk nag lu xew ci réew mi dañ ci war a am dañ ci war a bokk te fii dañ toll foo xam ne réew mi àddina bi léegi dimbalante moo fi ne parce que dafa metti metti goo xam ne pour yow rek nga toog si benn ruq fexe fexe fexe ba jàll parce que jamono bu méttee te charge yi bari lu bari doo ci mën a génn da nga góorgóorlu am volonté yàlla dina la jàppale mais nag fa nga war a dem doo fa dem parce que soo amul euh, lu la dimbale fa nga bëgg a doo mën a fexe ba egg fa. que ndax da ngeen ci ñi ngeen di waxante ci wàllu koom yooyu muy jigéen muy góor des fois ñu wax la dara après muy gis ci télé bi. waaw moom jafe-jafe day am parce que surtout suñ métier mii nag. li ci gën a doy xam nga soo nekkee boroom kër yor tele sa kër. jabar sa njaboot lekk. sa télé daal di paan li gën a garaaw ci suñ mbir léegi kooku day jël tele bi rek yóbbu ko ci benn technicien mën na ñëw waxanteek moom. léegi ne ko la nga koy defaral parce que kër ga amuñu lu ñu seetaanee nangam nangam yow nga jël sa xaalis dugal ci defar ba liggéey ba pare doo ko gis. li tax doo ko gis man comprendre na parce que moom daf ne ngéejalu waa kër ga léegi te xam nga téléviseur léegi mënunta ne ci kër paan nga yor doom yor jabar duñ la may jàmm. papa télé bi diw télé bi diw télé bi yow li ngay mujj obligé def mooy jël ko rek yóbbu ci réparateur. soo demee nag après booba demee doo fa nekkee lu dul yàq deru réparateur yi diw triant la dama ko joxe sama télé bi ba pare jox ko sama xaalis xam nga defara lu ma defara or que loolu yëpp dara amu ci ñun dañu gis yooyu ñun ñun moom façon nit bu leen la ñuy taseel léeg-léeg gis nit jëlee nit jëlee télé Europe ne la ci la doon seetaan fekk manqué na carte boo xam ne sax dañ ko dindi wala soit ubbi nañ ko sax bontewaat ci beneen carte boo xam ne sax du bosam xam nga te buy ñëw di la ko indil danaa wax télé bi ci laa doon seetaan moo tax may dénk sama mbokki techniciens ñuy def attention bu baax a baax a baax parce que pièce bu ne mën nañ ci tombe man ma sama am benn pièce ci rajo oto Dakar waa ji kooku daf ma miinoon trop dañ leen doon liggéeyal rajo oto la jënd marché de fële port Sandaga la ko jëndee xaw ma fan xam nga foofu dañ daan def vente au changer léegi dañ naan prix nangam rek kee fay kee fay amul essayé amul dara nga jënd rajo oto la la jënd ñëw klaxonné suñ buntu place ma génn mu ne ma corde bi moo dagg corde mooy li ñu doon jàppee kii xam naa yéen du ngeen ko xam parce que loolu da fekk loo appareil bi ba ci boobu moteur ba sax newu ca xam nga foofu dañ daan dajale rek ay xam naa ña fa newoon ñoom paa dañ daan dajale ay xott for for for nettoyé ba mu seet ñu yóbbu jaay dañoo amoon seen avocat amoon seen commissaire bu fay toog bu ñuy def vente au sens lépp dafa newoon problème boobu kooku ba mu ñu retourné ñëw ba ma ko ne kii bi dara néewu ci deful dara daa départ rek tuuti laa toog waa conk ñëw jël si ma problème boobu ma am ko ci taw loo yooyu ba léegi mu ngi ci réew mi ndax fi mu ne nii nit ñi dinañ jëlee fee bagage ndax daanaka nit ñi dëgg moo amatul ci réew mi koo gis rek ku gis mu ngi fexe nu ko naxe waaw bu ñëwee. ubbil ci kanamam léeg nga gis nit ñëw ne la. ah télé bi léeg-léeg day tàkk léeg-léeg bañ a tàkk wala boo ko fëgee or que dara néewu ci da du tàkk waajuta tàkk dafa paan soo dépendre ci loolu nag mën nga am problème moo tax nit ñi may ñaan sama mbokki ouvrier yi bu ñu yàkkamte bu ñu gaawtu appareil bi bu ñëwee na borom taxaw teg ko xool ba gis li ci ne te na la leer nit balaa nga ko facturer na nga xam li mu paan parce que électronique code dafa am code boo xam ne li mu santaane mooy nit ki waruloo ko sax defal facture tant que dépanné wuloo ko ba pare maison yi noonu lañ daan liggéey bu njëkk soo indee appareil dañuy enregistré appareil bi jox la fiche nga dem buñ ko vérifié buñ ko dépanné ba pare boo ñëwee mooy it boobay nit ñi dañu honnêtoon dañu jub xamuñu woon tappale yu bari yi boo ñëwee dañ la naan pièce nangam pièce nangam lii lay jar lii lay jar main d'œuvre nangam la nga fay système boobu moom la waa nit ñi war a indiwaat pour di ci liggéey parce que téléviseur dina ñëw léegi bañ a tax léegi télé bii su ñëwoon tàkkut amul standby amul dara alimentation mooy def loolu mm-hmm. léegi alimentation bi muy yàqu fekk na meen bi moo njëkk a am problème yàq alimentation bi nga facturé borom télé bi alimentation bi mm-hmm. nga ut alimentation bi defar alimentation bi ba pare meen bi démarré wut léegi yow nan ngay def mm-hmm. doo ko ne dellu dollil xaalis léegi yow yaay bu fekkee da ngaa gore parce que comme wax nga ba pare wax yeew na la wax boo waxee ba pare rek tënku nga léegi li lay war mooy dem uti ko def sa pertement la am na télé bu mag bu nekk foofu fi mu ne nii dama ko waaju baax ko moom nag néew fi dama ko ko defaroon changer écran bi ba mu pare moom dellu na ma woo ko wax ko ko filmer ko ni muy doxeek lépp envoyé ko ko mu ne ma dina ko wax jabaram mu jël si ko jël si wu ko jël ba fan yi dama julli tàkkusaan sëlmal geesu rek gis écran bi toj xam ne am na lu ci dal te fi mu ne nii kan moo ko gàddu man maa ko gàddu maa koy utaat parce que heureusement sax filmé woon naa ko lépp ba envoyé ko ko mais fi mu ne nii sama responsabilité la nekk fi ne man maay obligé jëndiwaat écran ma def ko ci yooyu yëpp dañ koy jànkontre ay problème yu méttee métti la ñuy dund mu métti la moo mën naa ne nag waaw mën naa ni déet parce que tamit métti la moo xam ne yàlla dogal na it mën nga ci gagné xaalis léegi léegi mën nga ci am xaalis léegi parce que ñaare yi ngay paan bu la yàlla mayee xam-xam tuuti mën nga ci bañ a sonn wala nga am bagage yi mais damay wax booy ni leen ñëpp techniciens yi bagage yi de leen facturer nit ñi di leen liggéeyal te bàyyi taxawaalu bi dem kër nit ubbi fa téléviseur parce que ouvrier bi bàyyi place am yow sa place mooy sa lépp su la nit ne sama téléviseur bi damaa bëgg nga ñëw sama kër nga ne tëj sa atelier dem boo demee du la sax nawloo nga ne fa kiir kiir kër kër kër kër bu ko neexee nga pare ne ko fay ma nanga mu ne la non loolu dafa bari léegi imagine yow nga bàyyi woon sa liggéey dem ku ne mënoon na laa seet ku la fi mm-hmm. ah nga retourné waat tëjaat télé ba ba mu ñëwaat toog sa paas toog sa place yooyu la ñu war di moytu liggéey si la suñu teraanga nekk nañ ci nekk te fonk ko respecté ko kenn ku ne dox ci njub parce que njub tamit baax na capitalu ouvrier moom mooy njub lu ne nag mën nga ko dégg ñu baatal la fu ne mais l'essentiel li ñu lay wax yow fexeel ba buñ ci teg baaroom waaw te kenn ku ne fa nga nekk la nga nekk yàlla nga lay gis yàlla moom kenn du ko def lu ko umb waaw luñ la wax jàppal ci yàlla féetale ko gannaaw rek nekkal ci li nga war a nekk loolu mooy am solo ak lu munti doon it loolu moo ci am solo rek nit ki daal boo xëyee nekkal ci ñum nekkal ci li nga war a nekk man loolu laay man loolu ñaan yàlla mu dimbali ma ci loolu laay sant ñëpp. laaj te ngeen ma waroon a laaj te xaju ci de moom xam naa bari na sax li ma ci mën a tontu mën a tontu ndax bari na lool mais daal xam naa ne daal li ci jiitu daal mooy. ouvrier ñun électronicien daal moom vraiment sonn nañ sonn nañ lool ndax euh, xëy rek am sa 10 mille boo def sa poste wala sa 30 mille teewul nga sonn parce que su ne nii ku mel ni man par exemple suma xëyoon tey ba wàcc su ma yoree benn 10 mille di ñibbi damay am problème pour dem sama kër parce que déjà sama soo jëndee gasoil def sa oto bëgg dem sa kër joxe dépense man sama dépense su ma yoree benn dix mille man duma ci génn su may ñibbi te jamono ji toll na foo xam ne métti na métti te léeg ma xëy fii def fi une semaine du ma am dix xam nga day métti moo tax euh, war nañu gestu daal waaw te xam ne ci réew mi lañ bokk te waaw ndimbali ñuy joxe te ñu nit ñu jéem a booloo manko def euh, association gars yi parce que gouvernement tamit bu la reconnaître du la mën a dimbale bopp yi waaw waaw loolu moom doon naa ko fi tànte sax mais xam nga daanaka fii ñi fi ne ay gune lañ daanaka pour dugal yenn ci seen bopp du yomb. ku ñëwee boo xëyee da ngay nekk ci sa bopp rek mais daal maa ngi laan maa ngi leen di lancer waat appel ñu jéem booloo te dajaloo am fu fuñ tënk foo xam ne bu ëllëgee dinañ dinañ mën a reconnaître daal parce que nit bu la xamul tamit du la du la jàppale. réew mi gaa gouvernement du jàppale nit ñi moom parce que fii moom li fi xew mooy duñu créer duñ créer ndox li ndox la ñuy def li xew mooy ñii dañuy am di dimbalante ñi amul dañ leen di bàyyi di leen xool. loolu nag mooy li doy waar ci réew mi yàlla ñu ko fi yàlla jëleel maa ngi leen di sant di leen gërëm. ku la bëgg a jot ak bëgg am yeneen liggéey yu ma sant. waaw sama numéro téléphone numéro bi 77 la 921 90 29 77 921 90 29 76 666 25 23 76 666 25 23. Euh, waaw maa ngi fii Daaru Xuddoos wetu bassin Sëñ Mourtala tali libi jëm garasu Daaru Moussi foofu laa nekk maa ngi yëngatu yi maa ngi yëngatu ci ay ginaarit dama yar ay bula hollandais di ci kii xam nga par évétement yi rek laa koy yar nag tamit waaw loolu la daal maa ngi fii di daan sama doole daal jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëñ Massamba Ndiaye nekk tamit macha allah jàmbaar ndax dañ ne lu duuf ci nag bi xaju ci cin ni waaye sama baay bu baax ba da nee na ma bàyyi ka der lu regg su mën na caa am kon nag uh, ñu ngi koy jaajëfal ndaw ñi nga xam ne tamit ñu ngi liggéey ci métier mi nañ ko jege ndax mag mat naa ba cim réew te suñ ko jegee rek uh, ku nekk sa xam-xam mën naa yaat te moom ni ku ubbeeku la ni mu waxee bépp ndaw bu ko jegee uh, dana la won xam-xam bi nga xam ne mi ngi ci moom dana la ko jox centre formation professionnelle yi nag Touba dañ ko war a gën a yaatal ci corde de yu bëri parce que du bii rek yeneen demaat ak ci yeneen métier yoo xam ne yooyu da ci am ñu gën ko yaatal ba ndaw ñi eh, bëgg métier mi gën cee góorgóorlu mën cee génn am ci seen i diplôme ëllëg ñu mën cee dimbale seen i waajur waaye nag ñu ànd ak yar ak teggin tey lii leen leen indi woon bay ca bay sawaar tey lii indi woon seen émission suñ première émission nag ñu ànd ci ak sëñ Massamba Ndiaye nekk jàmbaar joo xam ne macha allah ci dëkk bi sell bi la nekk di liggéey te di ko sell kon nag euh, ñu leen di jox rendez-vous ba beneen yoon ci cadre caméraman bi ma ànd ceeg sama cadreur bu baax bi Alsane Sané ci cadre ngeen ànd ceeg Soxna Jaara ci régie ba ak monteur ak euh, yeneen liggéey so sowaan Sané ba Basiru Nefa Waarwi bi seen yitte ci la ñuy dox ba beneen émission incha allah ci barke Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul